merci de nous regarder sur 24actu.com euh, très ravi de vous retrouver mbokk yi dalee nag jàmm ci 24actu.com euh, ni ngeen ko xamee rek ñu dëkk yéen ci situation bi nga xam ne rek moom moo jëm ci lu soxal mbas mi nga xam ne rek moo xew euh, ci réewum Sénégal comme ni ngeen ko xamee boobaak léegi daanaka àdduna bi pandémie bi di gagné terrain bi waaye itam fi nga xam ne rek moom moo di réewum Sénégal desul ginnaaw ca moom jàmmoomalee mbas ndax te sunum réew am na ñu bëri ñoo xam ne jot na nañu amee jàngoro ji nga xam ne rek moom moo di Covid 19 tolluwaay geeg fa ñu ci toll ci réewum Sénégal lu jëm ci wàllug xeex beeg yu ni mel ba léegi rek màkkaanu jëwriñ ji toppatoo jëm ci wàllug wér-gu-yaram euh, nekk ci loo xam ne rek moom moo di lu jëm ci wàllug xeex mbas mi ak yu ni tax na nag ministère de la santé et de l'action sociale ba léegi rek xam ngeen ne euh, fan yi rek mbas mi euh, gën naa yokku fi nga xam ne rek moom moo di ci réewum Sénégal ndax kay bu ñu nemmeekoo rek li nga xam ne rek noonee lay doxe wute na ak lool ni nga xam ne noonu lañ leen ko xamee woon ndax euh, seetlu gi moom moo di euh, ñi nga xam ne rek ñoom ñoo amee jàngoro yu Covid 19 gi lim bi heure bu nu xëyee mu ngay gën di yokk ci réewum Sénégal loola itam bokk na ci li nga xam ne moom moo jaaxal euh, ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci réew mi la ndax bu nu seetloo itam yamul sax ci réewum Sénégal ndax ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci diaspora bi foofa itam am na ay sénégalais yu bëri yoo xam ne jàngoro ji di Covid 19 di mbas mi jot na leen a laal toll nañ ci daanaka téeméer bu manqué benn yoo xam ne rek jot na leen a faat ci lim bi nga xam ne rek jot na leen a faat ci mbas mi ci Sénégal euh, donc mu nekk situation boo xam ne rek fi mu toll nii sunum réew euh, mu mel ni rek li nga xam ne moom moo di mbas mi di Covid 19 ma nga fay gën di am euh, jéego boo xam ne mi ngi ko fi am mu mel ni nag loolee war a tax ñi nga xam ne rek ñoo nekkee ci réew mi taxawaay bu am solo boo xam ne warees na ko cee amee jëmale ko ci wàllu googu beneen seetlu gi nga xam ne itam mënees na ko cee nemmeeku moom moo di ñi nga xam ne rek moom moo di faatu gi ni muy gaawee ak fan yi ndax seetlu gi daanaka ci lu jege euh, juróomi fan am na ñu bëri ñoo xam ne euh, jot nañoo ñàkk euh, seen bakkan lim ba mën nañoo toll ci fukk ak juróom-ñeent yoo xam ne jot nañoo ñàkk seen bakkan loolee tax na nag jamono ji lu jëm ci wàllu ko mbas meek na muy doxee tax na organisation mondiale de la santé ñoom itam di alerte ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waa àdduna bi ci mbas meek ni nga xam ne noonu lay doxee ndaxte lu ko may diit nañu mu faat ñu bëri ci adduna bi rawatina nag fi nga xam ne rek moom moo di Afrique euh, ñu wax nag euh, tey jii ci euh, bés bi ak tolluwaayu jàngoro ji xam ngeen ne tey jii nag ci ay test yu bëri yoo xam ne rek jot nañu ko réaliser ci réewum Sénégal daanaka toll na ci juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñett yoo xam ne ci ay test yoo xam ne jot nañu ko def téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ñoom ñoo dikk positif maanaam ñoom ñoo amee jàngoro yi Covid 19 gi loolee itam am na lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom yoo xam ne doon nañ leen topp muy màkkaanu jëwriñ ji nga xam ne euh, ñooy toppatoo lépp loo xam ne rek jëm na ci wàllu wér-gu-yaram ci réewum Sénégal am na lu toll tam juróom-ñett ci ay cas communautaire muy yi nga xam ne moom moo jaaxal askan wi di ay nit ñoo xam ne dañuy amee jàngoro ji euh, te xamuñu que euh, leen ko wàll bu dee nag tolluwaay gi loolee jaaxal na ñi nga xam ne rek ñoo nekkee file bu fekkee ni itam ñi nga xam ne ñoom ñoo jot a wér ci jàngoro ji tey ci sunum réew toll nañ ci juróom benn fukk ak juróom mu nekk nag lim boo goo xam ne euh, daanaka par rapport ak li nga xam ne moom lañ daan am am na ak wuute goo xam ne am na ci euh, ci wàllu euh, googu ñi nga xam ne rek ñoo wér ci réewum Sénégal ba mbas mi tàmbalee ak léegi toll nañ ci juróom téeméer ak fukk ak juróom bu dee nag cas yi nga xam ne rek moom la ñu déclaré muy ñi nga xam ne rek ñoom ñoo amee jàngoro yi Covid 19 gi ba mu tàmbalee ak léegi toll nañ ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn bu dee nag li nga xam ne moom moo génn àdduna toll ci fukk ak juróom juróom-ñeent bu dee nag ñi nga xam ne jamono ji euh, ñoo nekk ci kër docteur yi di xaar lu jëm ci wàllug euh, faj meeg yu ni mel euh, toll nañ ci junni ak téeméer ak juróom fukk ak benn seetlu gi nag moom moo di ci résultat yi nga xam ne rek jot nañu ko jot mu bàyyee ci màkkaanu jëwriñ ji toppatoo li jëm ci wàllug wér yaram moo di tey Sénégal li nga xam ne jot na ko am ci ay cas yoo xam ne bari na lool ndax téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar ci ay cas loolu nekk li nga xam ne tax jaaxal na euh, ñi nga xam ne rek moom moo di euh, Sénégal leneen li nga xam ne itam euh, gën na leen a jaaxal ci wàllu ko mbas mi muy cas communautaire yi di ñi nga xam ne dañuy amee jàngoro ji nga xam ne moom moo di Covid 19 te du ñu xam que leen ko wàll donc loolu mooy situation bi nga xam ne tey jii am na ci réewum Sénégal ak tolluwaay bi nga xam ne rek am nañ ko ci wàllu ko mbas mi donc loolu nag nekk situation boo xam ne dëkk bu sell bi di Touba itam gis nañu ni démb amoon nañ ci ñaar donc mu mel ni am na taxawaay bu am solo boo xam ne euh, ñëpp wax nañ koo amee daal di koy jëmale ci wàllu mbas mi ak li nga xam ne rek moom la ñuy wax les gestes barrières muy euh, li nga xam ne moo war a tax ñu mucc ci moo xam lu jëm ci port de masque bi gis nañu euh, Marie Xemes mi nga xam ne rek moo doon wax tey li nga xam ne rek moo expliqué na ko ci wàllu ko mbas mi ak taxawaay biñ ci war a amee rawatina port de masque yi nga xam ne bokk na ci li nga xam ne mën naa gàllankoor lu jëm ci wàllu ko mbas mi waaye waaye ba léegi rek euh, seetlu gi moom moo di li nga xam ne moom moo di kaa communautaire yi di gën di bari loola itam rassemblement yi nga xam ne dañu koy nemmeeku ci Sénégal mu mel ni am na euh, fu bari foo xam ne itam ña ngi ko fay nemmeeku loola tamit war naa tax ñu gën cee euh, bàyyi xel ci li nga xam ne rek moom moo di mbas mi beneen bi mooy gis nañu ni jàngoro ji ni muy lawee ci àdduna bi ku ci mel ni Italie gis nañ ne mu fa def ak Espagne waaye itam fan yi mooy seetlu gi moo di gaaw gi bari na lool ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di faatu ci diir bu gàtt ñi nga xam ne rek ñoo ci faatu lim ba ma ngay gën di yokk waaye beneen bi nga xam ne itam mënees na ko cee jàngat ci euh, résultat yi nga xam ne euh, jot naa génn muy li nga xam ne rek mooy cas grave yi daanaka toll ci juróom-ñett waaye tamit dañ ko répartir ci ay régions yu bari parce que euh, souvent dañ doon dégg ñu ne la dakaar wala nangam mais dafa mel ni léegi mbir yi dafay gën di yokk loolee tax na nag ñu nekk ku ci nekk ci réewum Sénégal war cee bàyyi xel ci taxawaay bi nga xam ne war nañ ko cee amee tolluwaay gi fi mu toll nii amul kenn koo xam ne mën na ne euh, diggante fii ak fii lay jeexee parce que bu nu seetloo euh, lu jëm ci wàllu grippe am na ay grippe euh, xeetu grippe yoo xam ne daanaka ci àdduna bi def na ci ay ñetti at ak yu ni mel gis nañu tamit yeneen xeetu jàngoro yu xawoon a nuroo ak li nga xam ne moom moo di Covid 19 waaye yàgg goo xam ne yàgg na ci kon fi mu toll nii yaakaar naa ne ku ci nekk taxawaay bi nga xam ne waras nga ko ci amee jëmale ko ci wàllu mbas mi loolu war a nekk bu baax. li nga xam ne euh, wax nañ ci euh, bàyyi xel pour le moment loolu mooy euh, situation bi nga xam ne tey jii am nañu ko ci réewum Sénégal ak lu jëm ci wàllu ko mbas mi ak tolluwaay bi nga xam ne rek jotees na ko ci am te makaanu jëwriñ ji toppatoo lu jëm ci wàllu ko wér-gu-yaram ci réewum Sénégal ñoom ñoo ñu ko eggee ñu fàttali leen ko ci juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar ci ay tests yoo xam ne jot nañ ko réaliser am na lu toll ci téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne dikk nañ positif maanaam ñoo amee jàngoro ko Covid 19 ji waaye am na lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak euh, juróom-ñeent yoo xam ne ay cas contact la yoo xam ne doon nañ ko topp muy màkkaanu jëriñ ji toppatoo lu jëm ci wàllu ko wér-gu-yaram am na lu toll ci juróom-ñetti ci ay cas communautaire am na lu toll tam ci juróom-benn fukk ak juróom yoo xam ne euh, ñoom ñoo wér ci réewum Sénégal waaye kaa yi nga xam ne jot nañ ko déclaré toll ci juróom-ñaar ak fukk ak juróom euh, bu dee nag ñi nga xam ne itam ñoo wéri ñoo wér ñoo toll ci juróom-ñaar téeméer ak fukk ak juróom bu dee ñi nga xam ne itam jot nañ leen a déclaré ne amee nañ jàngoroy Covid na gi ci réewum Sénégal euh, toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak euh, juróom-benn bu dee ñi génn àdduna toll ci euh, juróom-ñeenti ci ay fukk ak juróom-ñeenti ay nit ñoom ñoo génn àdduna fi mu toll nii ñi nga xam ne ñoo nekk ci bërëbu fajukaay yi nekkee ci réewum Sénégal di xaar seenum faj toll ci junni ak téeméer ak juróom fukk ak benn loolu mooy situation bi nga xam ne tey ji réewum Sénégal amee na ko ci jàngoro yi Covid 19 gi bokk na ci li nga xam ne bokk na ci li nga xam ne itam des koy digle muy mag ñi nga xam ne itam euh, seetlu gi moo di mag ñi jàngoro ji da leen doon gën di laal daanaka sax ci àdduna bi études yu bëri euh, loolu la ñu wane réewum Sénégal tamit seetlu nañu ñi nga xam ne ñoo génn àdduna loole bokk na ci kon euh, li ñuy ñaax askan wi ak ñi nga xam ne ñoo nekkee seen kër rawatina mag ñi ñuy def maanaam déplacement yi ñu wàññi ko waaye tamit seetlu gi moo di gis nañu ni nekkul ne jàngoro ji mag ñi kese lay laal ndax Sénégal am na ñoo xam ne jot nañ cee faatu te bu xoolee at yi nga xam ne am nañu ko euh, du sax at yi donc loolu mooy euh, li nga xam ne tey moom lañ leen àndiloon ci situation bés bi andoon euh, ci ak yéen ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di leen jox daje incha allah ba beneen yoon ñu fas yéene àndaat ak ci situation bi jërë ngeen jëf